la ca am ñetti seen loxo takk ak lépp li nga xam ne ministère waroon na ko ci def defu ko ci ba lii musiba bi am loolu moo tax tey ñu ñëw fii ak délégation fukk ak juróom-ñetti nit yoo xam ne direction générale action sociale direction si ñëw na direction hôpitaux bi nga xam ne man maa ko yow ñëw na médecin chef bi mi ngi fi ak inspecteur des affaires administratives et financières ñëw nañu ànd seex tam directeur de la santé de la maire parce que tey dañu bëggoon daal buñ fiy jóge lépp li nga xam ne mën nañ xayma ne moo wundu lii xew fii ñu mën ko jébbal ministre de la santé comme ça lépp li nga xam ne mooy dogal bu mu si nar a jël incha allah dina ko jël ci ay fan yu néew. xam xam nga lajj lajj du am parce que hôpital comme niñ ko waxee dañu ne lépp li nga xam ne mooy jumtuwaay yi ñu nar a teg pour que nit yi mën a sauver wala ñu mën leen paj ministère bi da ko nar a teg lépp luy xam-xam war na fi nekk waaye li si des nag bakkanti loxo borom bi subhaanahu wa taala nekk donc ñun dañu nar a def li ñu mën pour que benn bakkan du fi rot loolu mooy li ñu war mais comme enquête bi jeexagul te comme ni ngeen ko xamee dinañ toog ñaari fan yoo xam ne dinañ saytu lépp ba mu jeex waaye bu jeexee lépp li nga xam ne tamit moo ci ruut ruus wala moo ci génn dinañ ko jébbal kilifa bi kilifa bi dina wax ak nit yi dinañ wax tamit lépp lu muy def waaye lu mel nii moom gëm naa ne dootu fi am parce que dootuñu ko nangu. ñun boo gisee ñun sax ñu jóge fi fukk ak juróom-ñetti nit jóge Dakar ñëw fi indignation bi si ñun la tàmbale ñun la suñu xol njëkk a naqari ndaxte man saa yu may yeewu suba médecin chef bi nekk fii ak euh, directeur Baara. yaakaar ñu sax benn nit tànkam dana damm ba ñuy xalaat nit di ci ñàkk bakkanam donc euh, lii dañ ko bokk ak waa Louga bokk ko ak waa këru ndaw si di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla xare àjjana mais woon leen ne lu mel nii na fi nekk guléet bu mu fi amati te na ñit yi seen xel dal nañ ñëw faju hôpital yaakaar naa ne bu dee téeméer faju nañu benn parfois moo ci am gàllankoor mais ñett des ñëpp am na loo xam ne am nañ ci satisfaction donc bu ñu topp euh, wax yu ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koy wax nañu xam ne hôpital bi ñun waa Louga ak Sénégal ñoo ko bokk kon lu fi mën mënti am rek mën nañ taxaw xool ko ba nga xam ne danañ ko def ci anam bi gën comme ça population bi mën ci bénéficier. Euh, loolu laa doon wax seen ay naataangoo en fait euh, dafa am loo xam ne kenn mënu ci wax mënuñu ci wax parce que buñ ko jëlee ba pare ay dogal la yoo xam ne boo deful ndànk dana am jeexital si nit ki nga xam ne moom mbir mi dal tey bakkan nu mu diisee bu ñu ko doon euh, toftale noonu nga dem ba di jéem a dimbali nit yàlla def bakkanam rot nga nekk ci naqar suba ñu lay tegaan naqar ba pare di ko wax ci tele bi fu ñu romb ñu naan la ah monsieur Diouf la wala monsieur Dia ministère de la santé yaakaar naa ne mu suñu ragal jël ay dogal li fi xew yëpp jël nañ ay dogal waaye dogal yi dafay loo xam ne duñ ko wax ci biir télé wala rajo am na ñoo xam ne dàq nañ leen am na ñoo xam ne suspend nañ leen am na ñoo xam ne tey amuñu tu sax droit di faj malade loolu bu ñu ko jëlee nag duñ ko ñëw di ko jébaane dañuy ñëw jël ko mu nekk ay mesures administratives léegi ku ci wax nag yow yaa ko siiwal mais ñun duñ ci wax moo tax euh, na seen xel dal benn conclusion du des ci biir tiroir yi ndaxte yàlla def na ne yéen vous êtes euh, comme ay sentinelle lu fi mun munti am suba di ngeen ñëw mun a wax mais dinaa leen wax ne si ay fan yu néew li ñu def li ngeen dinañ ko fi def mooy enquête bi dana mot dana yegg fu mu nar yàgg te daan yi ñu ci nar a daan bu dee amaana am na ñoo xam ne seen loxo takk na ci dinañ leen daan daan yi gën a métti si daan yi